tey nag ñu ngi fii nga xamante ni te yaakaar naa ne moo di Mbour si bergerie wu Nicolas yaakaar naa ne nag bergerie mythique la ñuy wax mystique ah. boo xamante ni tey yaakaar naa ne euh, képp ku dund élevage rek yaakaar naa ne boo déggee tur ah, am na lu mu lay jox parce que yaakaar naa ne ay xar yu ama am solo ay xar yu mucc ayib waaye ay xar yoo xamante ni tey marqué nañu élevage tey si Sénégal ñoo fi nekk yaakaar naa ne saalum saalum fii la nekk gaynde fii la juddoo ah ba ñu jaayoon ko jaayoon ko foog naa ne bokk na si xar yi njëkk a jaay ay millions millions millions ah, waaye nag avant rek yaakaar naa ne am na ko fi nekk foog naa ne maam Thierre la ah, moom si si si bërëb bi maam Thierre maa ngi lay bu baax waa Lutte TV naka yi tey mbaa yéen a ngi ci jàmm waaw alhamdulilah. yaakaar naa ne ñu ngi si daj dëpp gi nag kii nag mooy Saloum Saloum pour ñu koy dégg ah. magal na nag ko xool na xam ne macha allah magal na loo ñu mën a wax tuuti rek si Saloum Saloum. waaw Saloum Saloum moom mooy mooy Sénégal Saalum Saalum waaw parce que dafa toj Sénégal moom ba Sénégal jeex tak mu dugg Gàmbi rajaxe ko dem Mauritanie moom faxasu mu jeex kii amul lu mu deful ci élevage Sénégal waaw kii kii dafa defar élevage élevage dafa am fu mu tolloon mu ñëw am lu mu ci yokk muy esthétique tey kenn ku nekk dafa am looy liggéey mais moom day ñëw defal la beauté boo xam ne amul fenn waaw xar la boo xam ne tarkala macha allah lu mu jur dégg na daal yi moom dafa dégg daal yi moom ba moom lu ne dégg na ko lépp lu mu jur nag xar mi moo njëkk jar 15 millions ci Sénégal. Saalum Saalum Saalum Saalum. moom ngeen ko jëndee woon wala. waaw njëkk jar 50 millions. te amul fooy dem ci Sénégal ne doomu Saalum laa bëgg doomu doomu doomu bëgg booy taxaw ne bëggu man bëgguma doo bëgguma saawu Saalum Saalum amul. borom bergerie yi képp kuy éleveur bëgg nga. saaw kii waaw. loolu la yàlla dogal ci moom c'est que mu dafa doon maal boo nga xamante ni euh, gis nga bu la fekkoon tey ngay éleveur boo xam ne éleveur bu ndaw nga mosoo jaay xaru euh, un million moom mën nay jékki jékki jékki rek nga am ci saam mën ngay jékki rek am 10 millions nga am ci saam rek da jékki-jékki rek am 10 millions. xar mu am barke nga am ci saam dana la yóbbu ji kat kat. yàllaa ko barkeel. loolu yàllaa ko. mu ngi si ñaata kii ma am na 11 waaw te ba léegi fi may wax ak yow nii maa maara day taal léegi mu ngi tëb ah yow kii ñun dafa am lu ñuy liggéey moom kii li muy lekk ak li lekk sax duñu benn am na hygiène de vie dafa am hygiène de vie te fi ngay gis ni mën a taxaw deux heures temps amul benn xar bu mën a taxaw deux heures temps bu dul moom mii muy mbot xar yi juddu bee sax mënuñu ko sekk nag dafa am régime bu muy jël boo xam ne loolu ñun suñu secret la moom lañ koy jox noonu lay dundee te bu xëyee faaw mu génn ci naaj bi dañ koy diw kërise di ko defal massage ak lépp. mu ngi dund. mu ngi dund mu ngi am wér gi yaramam mu ngi tranquille piqûre du ko laal. nii non kii loo ciy piqûre. vétérinaire amu ci wàll. non kii vétérinaire bu doon moom rek vétérinaire dootul liggéey vétérinaire ñoom xam nañ li may wax. amul saalum saalum vétérinaire saalum saalum amul vétérinaire bu mos a sonal ci àdduna loolu la yàlla def ci moom te ba mu duggee ci gétt ki ba léegi xamul ni buntu kër gi mel. amul génn xamul génn mësul génn. du ngeen ko yóbbu foire yooyu di ko exposé kii day yeble kii kilifa la. Ah. waaw kii day day yeble quoi. waaw moom mais léegi diggante Luc Nicolaï ak xar. Euh, Luc nag dafa yàgg ak jur. xar ak lu ne jamono yi jamono yi jamono yi lankituus nga xam ne daan jënd ay xari kuur kuur ay xari pël-pël yoo xam ne da koy jënd di ko yar di ko yóbbu ci débiteereem da daan jënd ay nag moom dafa yàgg ak jur ko du tey ba de 2013 bu mu juumul ci la soog a dugg ci laadum mais moom yàgg na ci yarantu moom xam na xar bu baax a baax a baax moom xam na xar kon donc dafa am loo xam ne nag nit ñi dañoo yaakaar ne dafa am xaalis rek dugg ci non dafa xam dafa xam xàmmee yàgg ci xam nga lii ku xamul ku xamul càmm doo jékki-jékki di jënd saaru xar yi kon moom dafa xamoon xar benn fa ñëw dugg ci saalum saalum yàlla may ko tur ko may nii tey euh, ci ci ci càmm gi. tey amul looy wax ci càmm te doo ci boole bergerie mystique di Sénégal te amul looy wax ci càmm euh, élevage Ladoum te doo ci boole Saalum Saalum. parce que tey su ma juumul sax même même même euh, gaynde bi nga xamante ne tey Saalum Saalum ma ko jur am na ñu naan ne tëb gu métti bokk na si li ko fi jeexal loo yu demee noonu waaye kii ba léegi mu ngi nekk na géniteur tey ba léegi macha allah. kii ba léegi mu ngi tëb mais ak ni muy waaw ñun xam nañ ni koy joxee mu tëbee duñ ko jox mu dàq xar. te heure bu heure bu mu war a tëb dina tëb duñu ko bàyyi itam xar bu sëlër rek ñuy jox rek mu dàq ko dina non non ñun xar bu sëlër xam na nan lañ ko koy joxee ba mu tëb. te du sonn te du am benn problème te day tëb fi may wax ak yow nii bu xar sëlëroon da nga naan kii du saalum saalum loolu yàllaa ko def ci moom. yàllaa ko def ci moom waaw. mel ni tamit yéen ñi ko yor tamit maanaam am na lu ngeen ci maîtriser tuuti daal. waaw am na lu ñu ci maîtriser parce que kii ñun xam nañ li muy dundee xam nañ ni mu war a dundee ak euh, jamono bi rek la mu laaj rek xam nañ ko moom maanaam journée bu nekk bu ñu xëyee na ko tag teg suñu bët yi rek xam nañ journée bi lan la laaj ci moom parce que da koy wane ci yaramam bi jëmmam ji nga gis ni mu mel nii jeex na trop de mais xar mu ko gën a wér taxawul senegal moom mii kii déggul ma wax piqûre du ko dugg kii ngay gis nii. te nga mu ci 11 ans. tey espérance de vie xar euh, fan la yem espérance de vie xar normal. Ah, loolu nag moom xam naa ne. wala ça dépend daal ci ni muy. ça dépend rek ça dépend rek parce que kii boo xoolee tey ay doomam da ngay gis a yaakaar ne mo ay ay ay ay ay lañ moom ay doomam ngay ëlbatiku yaakaar na moom ay doomi ñooñu la waaw. maa ngi lay bëgg. li ma la wax daal mooy que ni gis nga élevage moom bu ñu bëggee xar yi di mën a dund dund bu baax di mën a gudd fan faaw ñuy am benn solo yi waaw man loolu laa gëm man. maa ngi lay bëgg. ok jërëjëf.